Malang Fadera maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant di la gërëm de. Malang Fadera nga nekk secrétaire général bu section communale bu Bagnères candidature au poste de l'UJTL nationale est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci jafe-jafe yi nga xamante ne dafa amoon bi ñuy renouveler euh, bureau bu UJTL. li ma bëgg a xamal Sénégalais muy aj bi ñu génn ki nga xamante ne moom lañ dénk lépp luy renouvellement instance su parti euh, ndaw yi nga xamante moom la ñuy waaye la fa jot am lu ma bëgg a leeral sénégalais mooy man mii di candidat bi wotew ma sama benn nit wotewul ndaxte mënuma fekk ba pare fekkaw ma seeni wat lañ fa def ñoom la engagé pour l'histoire donc man mënuma participer si boo xamante ne ki ñi dénk pour mu yeesal bànkaas yi dafa impliqué wu takk rip ba pare faral man ka nga xamante moom laay jongante bi kooku noonu dafa jël ñett yoo jël ñaar yi nga xamante moom la dugal si saal bi du ñu ay délégué ndaxte bi mu nekkee di baataral campagne kooku demoon na ba xam ne ba mu ñetti jours yi desoon ci campagne bi yëpp daanaka ñun ñoo téye carte gi mu ne samay manœuvre sur terrain du soxla mu ne la a def mooy impliqué wu parce que soo demee ci gox-goxaan yi bëri moo leen fa placé injustement moo tax tension mu daal di jël téléphone am woo ku nekk personnellement ne la jeunes yi ngeen di yóndee fexe leen ñu votel Franck Diatta diw dafa war a perte yenn si yenn si secrétaire généraux fédération yi xam ne seen ndaw yooyu noonu contact bi yàgg na sama diggante ak ñoom wóorul pour ñu yónni leen fii ci Ndakaaru ñu ñëw voté si parce que suñu voté see soo moytul lañ leen wax ci mot d'ordre bi duñ ko jëfe parce que vote bi daa war a nekk vote secret ñi daal di leen changer indi ñoo xamante ne kenn falu leen si seen gox-goxaan yi muy lu garaaw donc ñett yoo jël ñaar yi ñu ay délégué ma taxaw si porte bu mag bi kuñ dugal ma ne leen gox bii ni du kii diw la mooy délégué sañ dugalee mën na la gox bii du kii diw la mooy délégué parce que ñun ñu amoon nañ contact ak ñoom donc moo taxoon ñun ñu ne mënuñoo participer si élection bu mel noonu beneen bi mooy jabaram ka nga xamante ne jabar la ca moom moo jël téléphone am di wër àddina di woote fu ne di xamal nit ñi ne man damay ñàkk élection yi parce que man damay jege honorable député Serigne Abou Mbacké Dia alors ñenn ñi mënoon nañ mën nañ lan moo tax jege nit war laa mën a xañ nekk dans la Saliou Dieng dafa nekk dans la logique de dafa bëgg contrôler Dakar jàpp na ni xëy na honorable Serigne Abou Mbacké Thiam su amee doole loolu daf ko xaj am na droit am ay ambition ci Dakar am na droit bëgg a sax Sénégal loolu droit am la mais amul droit si Karim Wade ñu nga yaakaar moom pour jël nguur gi gérer pouvoir bi di leen faqasal di damm seen tànk amul droit boobu noonu amul droit di xeex jeunes yoo xamante ñoo ko ëpp njëriñ moom si parti bi ndaxte ñaari nit mënu la ko indi mais ña nga ne tey ñoo mën a ba Karim Wade falu moom amul droit di leen xeex yooyu ndaw ma ne la ñun mënuñoo participer si beneen élection bi moo tax bi coow jógee ka nga xamante moo ko sogone muy Famara Senghor woo na ma pour demander à ce que ñi ñu calmé wu ma ne man mënuma la déglu fekk yow nangu woo la ngeen def parce que la ngeen def yow xam nga ne man xam naa ko mu daal di ma ne man d' naa di def nañ mu daal di nangu avoué d' accord ni ñoom dañoo manœuvrer pour que Franck Daddy Diatta mën a jàll ma ko léegi mën est yaa ngi dégg lu garaaw loolu noonu nga xamante moom la nit ñi di mm. beneen bi mooy génne na benn convocation ne nit ñi ñëw leen ngeen renouveler ngeen renouveler instance bi te si convocation bu précisé bi ba à trois jours ñëpp nanguwuma wax convocation bi ban nanguwuma wax ban heure la vote bi te soufflé na ko depuis premier jour bi Franck da di donc malgré nu ma insisté naan ko Saliou wax ma heure bi nanguwuma ko wax te waxoon na ko sama adversaire yàgg. mu jël fichier électoral bi daal di ko teg ci loxo France benn jàpp faciliter la relation bi mu demee ba ba cappaandaw la mu xam ne loolu du sotti mu daal di impliqué wu personnellement mu jël ay fédération nangu ko si suñu loxo benn mu jox leen exemple fédération bu grand Grand Dakar nangu ko si suñu loxo jox ko ki nga xamante mooy gorom ci bokk ndey ak baay ak jabaram muy lu garaaw loo xamante ne musul am si parti bi jël sa famille di leen impliqué si parti bi di néewal ñuy doole sa jabar mooy décider kan mooy jàll ak kan moo dul jàll ngay fokkate ay fédération su loxo ay di ko jox sa jabar donc loolu mooy situation bi nga xamante ne moo amoon moo tax ñun ñu ne mënuñoo participer ci élection boobu noonu mënuñoo valider genre processus bu mel noonu. Mhm. mais euh, lan mooy problème bi ak Saliou euh, Dieng parce que dañuy dégg ñu bëree bëri euh, di ko ŋàññi ci biir parti démocratique sénégalais te dégg nañ sa wax ji pratiquement yaa ngi indexé Saliou Dieng du début à la fin. dama ne ndeykumba ku ñëpp tuf li nga tooy ndeykumba ku ñëpp tuf li nga tooy xanaa kañ mën nga ma ne diw sikk na lool jàppante na diw waaye ñëpp contre quelqu'un c'est parce que kooku mooy problème bi ñëpp mënuñoo ànd bañ kenn ñëpp mënuñoo ànd contre kenn ñëpp mënuñoo ànd contester kenn bu fekkee moom moo nekk ci dëgg. Saliou problème mooy dañ ko dénk responsabilité administrative pour mu yeesal bancage parti mais waxuñu ko nga bëgg wutu Karim Wade mais moom dafa jël bët bi rek teg ko ci place Karim Wade bëgg manœuvrer ci li nga xamante ne Karim Wade du mën a nekk candidat su nekkutee su nekkul candidat comme mu daal di dafa jël bët bi rek daal di ko fixé si place si fauteuil Karim Wade pour mën ko wuute si place boobu lépp loo xamante ne moom lañ ko sant si liggéey nekkul di ko def lu muy def mooy au lieu ñi nga xamante ñooy les plus méritants pour ñuy liggéeyal Karim mu falu mais moom dafa nekk di liggéey pour di placer ay nit boppam cest à dafa nekk di créer un parti dans un parti donc loolu mooy li nga xamante ne véritablement le problème ba ko daal di Mm. est-ce que aussi euh, moment bi moment wu renouvellement la Malang Fadera est-ce que euh, du yàq dara si parti bi parce que déjà mi ngi indi ay frustré comme yow ni nga frustré ci mbir mi ni niñ ko amalee est-ce que jamono bi jamono pour le euh, renouveler ay bureau si biir parti politique. bon man man du man lépp luy dëggal taxawaay taxawaay benn ci laay nekk lépp luy fragiliser la benn du ma nekk. lépp luy néewal doole Karim Wade du ma ci nekk lépp luy xeex Karim Wade du ma ci nekk donc je ne suis pas un frustré lu ma bëgg a xamal mooy bind nañ ñun bataaxal contestation ba pare daanañ ko déposer ci table Abdoulaye parce que ñun duñ recours mel ni sax élection am na recours amul et élection amul ñun dañ déposer contestation daal di motiver li war a mën a tax ñu contester récuser ça di gën a mën a organiser élection yi beneen bi mooy man dama jàpp ni parti buy dox war na mën a yees ay bànqaasam loolu c'est tout à fait normal man baaxul man bokkuma si ñu jàpp ne warul am man bokkuma si ñu jàpp ne warul yees la parce que bokkuma si ñooñu mais dama bokk si ñoo xamante ne dañoo jàpp ne ka nga xamante moom lañ dénk pour mu yeesal bànqaasu parti yi amul di am ku mu faral ak ñoom ku muy xeex amul droit di utiliser ses relations pour xeex ay nit di la passé si fédération yi amul droit de créer tension amul droit di liggéeyal boppam tandis que dañ ne liggéeyal parti di Sadio nekkul sax duñu xeex ñun xam nañu ñun nekk di xeex mais moom dafa nekk di ñu xeex parce que xam nañu ñun Karim lañ bëgg nekk di placé ñoo xam ne moom lañ gëm donc des salivistes sont en train de combattre te loolu man dama jàpp ni loolu suñu wareef la ñun ñu jaay ko suñu bakkan lu mu ko jaral benn rek jaral nañu fukk Sadio moo la gën a xam maseraadar ñii di jàll la ma daan yàgg def mu koy jig cette fois mënul sotti mënul jàll te dinañ te xar suñu tànk ci koy sauver Karim Wade parce que palum mooy njëriñu Sénégal te lépp luy tax ba loolu mu xañ ko Sénégalais lam ko jaral benn ñun jaral nañ ko téeméer. Mhm. Euh, un mois pratiquement moo des ci élection yi parce que début février ci la ñuy tàmbali euh, campagne bi euh, ñu ba léegi askan wi di wax ana candidat parti démocratique sénégalais. waaw Euh, gis na li déjà tout dernièrement communication bi évolué na maintenant ku si nekk ak nu ngay communiquer am na si ñoo xamante dañuy tàll ay live di communiquer am na ñoo xamante bind la utiliser pour communiquer am na ñoo xamante image dañuy jàllale pour communiquer am solo mooy gis nañ lu ñuy def Sénégalais ñu ngi si gis seen bopp c'est plus important ndax Sénégalais ñooy fal donc lu si des mooy yàggatu dina fi nekk ci diir lu yàgg trop incha allah donc ñu dugg si Sénégalais daal di battre campagne ñu dénk ñu réew donc candidat yi bëri waaye wax dëgg yàlla ku gën a xam nañ ko teg xam nañ ni Karim Wade am na compétence yi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci président donc la ñuy xaar ci njiitum réew maanaam ci xam-xam maanaam ci carnet d'adresse maanaam ci yiw maanaam ci sell loolu yëpp mu ngi si moom tey gëm naa ne sénégalais yi duñu xañ seen bopp yooyu yooyu avantage. voilà Malang Fadera aussi euh, élection yi euh, ñenn ñi sax ñu ngi wax ni Karim Wade ak xalifa euh, Sall boo moytul seen candidature conseil constitutionnel da koy bloqué parce que ñoom lenn kese moo mën a tax ñu jàll mooy ñu defoon li ñuy wax am amnistie si si seen kaw sinon seen candidature mën nañ ko bloqué au niveau du conseil constitutionnel. waaw xam nga ba tey waxuma juge constitutionnel xam nga ba tey waxuma ay juge ñoo ko wax xam nga li ma wax rek mooy ay militants ñenn militants yi nekk affaire ñoo koy wax lu dëgg tooñi seen mbébét la ñu wax li nekk seen xol la ñu wax parce que gis ni tey Karim Wade rek moo mën a xañ Ba mu jàll donc suñu sañoon tey privilège yooyu duñ ko ñàkk ka leen ko mën a xañ nañ ko écarté donc ñoom la ñuy la nekk seen yéene rek la ñuy wax mais loolu mënul nekk lu tax mënul nekk mooy deux mille dix-neuf bu ñu déposé suñu dossier de candidature dossier bii la ñuy wax ni ko moo leen manqué mooy li ngeen déposé si mention électeur nekkul si seen pièce d'identité te loolu am nañ ko léegi donc naka nga mën a comprendre deux mille dix ñu ñu ñu fay cent trente huit milliards ñu ñëw ba deux mille vingt quatre ñu ñu koy laaj loolu jurisprudence la te loolu si donc amande sax Karim amul lu muy fay c'est-à-dire amande activité fiscale ça n'a rien loolu wax nañ ko waxati ko waxati ko xaw ma ba kañ lañ mais wax nañ ko waxati ko expliqué nañ ko donc lu ma si ñëw fay lu ma la mën a xam mooy laaju ñu ñu ko woon te du tey lañu koy laaj te amul amalul dërëm siftin amalu ko Sénégalais ba leen ba di leen ko donc au contraire état du Sénégal moo ko Fadera kon ñu lay remercier bu baax a baax. Mhm. ñuy fàttali ni Malang Fadera yow yaay secrétaire général bu section communale bu Bagnères nekkoon euh, candidature euh, au poste de l'UJTL national de l'UJTL